gis nañ fa aussi ay trophées yu bëri yoo xamee ne euh, gis nañ ko foofu noonu mën nga ñu ci daal indil ci trophée euh, ñëwal tuuti ci trophée yi. na xam ne trophée kat. Mhm. Adja <laughs> dafa bëri. Mhm, est-ce que man sax j'ai macha allah non man kontaan naa si émission bi tey vraiment kontaan naa. am fii tey grande dame nee naa leen tey euh, mois de mars lañ nekk mois de mars en fait euh, dañuy génne ñi nga xam ne aujourd'hui li ñu def suñu dëkk dafa bari et cette dame bi nga xam ne moo fi toog nii tey muy Diouma Dieng Diakhaté li mu def ci culture dafa bari li mu def aujourd'hui social dafa bari man sax tooyal na sama xol parce que man <laughs> voilà donc euh, li mu def ci ñaw dafa dafa bari xale yu bari aujourd'hui tey ba ay ci la ñuy roy vraiment maman merci beaucoup pour li nga def pour ñun parce que man j'ai été mannequin et que nga ma tamit lu bari bari tey su la waxee ne tey pour nga choisir ta personne bi nga xam ne daf lay inspiré. Farba Senghor wala carte. photo yaa ngi nii ma. tu choisis ah, léegi nag par contre boo choisir maman mooy dessin. waaw ba keroog muy jeex ah. d' accord Carla pourquoi ñoo bokk métier yow itam kii lu mu deful ci ci podium yi. Mm-hmm. kenn du ko fi defaat. dëgg la. bëggoon métier mm-hmm. assidu ci liggéeyam. Mm-hmm. créativité kenn waxatu ko. dëgg la. une fois ndeysaan j'ai assisté a un de ces défilés mm-hmm, mm-hmm. à Paris mm-hmm. même si yàlla Katoucha ñaan laa àndaloon mu invité ma c'était donc euh, les grands couturiers mu ne ma juma dinaa la jël si ñu dem seetaani bi ñu demee foofu laa jëkk gisee Lagarfel sopp li muy liggéey gis nu mu fonk liggéeyam man vraiment je peux dire que il fait partie de mes idoles la c'est vrai dëgg la hmm, suñu première dame ak Karl lii day moom. Mhm, dilem. ah dilem la de nag du ma bàyyi sama première dame bi tànn keneen de Adja. waaw. dama lay wax dëgg rek. dëgg la. xoolal bii sourire rek. ba ñu weexi ndeysaan ba xoolal ma bii simplicité. ndeysaan. tout simple. waay takk ca xam. Mhm. takk ay lunettes am. musóoru mhm. naturellement. naturellement elle est très naturelle sourire bi c'est naturel. naturel c'est très elle est très naturelle ñu ngi koy wax aussi euh, bonne fête. ah, ah macha allah xoolal fii ko fi yàlla ba léegi loo ñu mën a wax fii nii tey. première dame des États-Unis waaye Obama ah une très belle photo. Mhm. Mhm. <laughs> desul gannaaw di xool ko. ak musóor bi. xool ko rek <laughs> ak mu weex mi macha allah. macha allah. macha allah vraiment simplicité moo neex ñëpp en fait. vraiment waaw loolu la mhm, dafa simple ba pare yëg doomu aadama. te loolu dafa am solo. dëgg la fay Faye Sall Gédoba. fii nag. dinaa. di nga kii tuuti nag dem ci ngay ah oui pourquoi pourquoi c'est un homme de culture. te yàllaa ngi def mu ngi fii dooru jóge te ñëpp xam nañu li mu liggéey ci cinéma. man Adja maa ngi xam Ngaydo boobu maa ngi liggéey à Setna. c'était dans les années bés ma wàcc. génn ci bunt bi. Mhm. buntu naa boobu jëlaguma sama oto. Mhm. ma gis ku daw rek traversé tali bi. Mhm. tuuti oto fiir ko. mu ñëw nuyu ma. mu ne ma yow yaa ma tax a toog fii ci trottoir d'en face bi di la xaar ba nga wàcc ma xool la. ndeysaan dama la sopp dama la bëgg ci sama xol. loolu kenn mënu ko fay. mën ma ko yow na nga tudd mu ne ngay dox. ma ne ko ma après ma ne ko muy muy ñëw de temps en temps la set naa mhm. un jour ma ne ko fooy liggéeyi foo ne mhm. mu ne maa ngi actualité sénégalaise du ma ko fàtte mukk ma fexe ba dem bureau man tam mhm. delloo ko njukkal tam seeti ko fa c'est important boobu mu ngi bokk ak bureau bay di saw ak ku ñuy wax Viera ak Ababacar Samb mii amoon na beneen tubaab bu fa ne mais fàtte naa tur wi mhm. ñooñu moom ma leen présenté foofu mhm. ca bureau ba mhm. foofu la nekkoon actualité sénégalaise bi rue Victor Hugo du ma ko fàtte mukk booba ak léegi nag ñu fasante kóllëre euh, Ngaydo bu ma yeboon sama livre moo ma gën a encouragé ma bind ko les secrets d'une réussite sama autobiographie daf ma topp di ma topp mais il faut mu boole ma ak waa Harmattan. Mhm. pour ñu defal ma. boo boole ma ak directeur bi mu nga daloon Afrique du euh, euh, Croix du Sud. Mhm. moom ngay doon mu téye sama loxo ne ma il faut nga bind. Mhm. yàlla def na nag finalement binduma ko ci ñoom. Euh, Amadou Lamine Sall moo ma ko mujjee produiral. et au passage je remercie beaucoup pour sa disponibilité. noonu la livre bi. noonu laa ko bindee ba ni mu gisee le jour. ngay du sonn ci lool lool lool lool nag war naa ko ñaanal. fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee. amiin amiin amiin na ko yàlla xare ci àddina mu gën a kawe ngay du ñaanul soxorul. yàlla na ko yàlla. teeru ci àddina mu gën a kawe amiin waay amiin amiin. bi princesse Diana. Mm, <laughs> pourquoi choix boobu noonu Juba Jeng Jaxate gis nga princesse Diana mm-hmm. Adja su ma la ne moo tax ma abonné woon Voici mm-hmm. ak ak euh, France Dimanche mm-hmm. moom mi moo taxoon ndeysaan ak gala yi galaaw yi mën naa la wax lépp ci parcours yu princesse Diana mm. je l'ai suivi jusqu'à sa disparition ndeysaan et je un an deux avant sa disparition booba maa nga Atlanta dem seeti sama doom yi. Uh-huh. ma dégg ñu ne du ñuy vendre boobu mu ngi dund. Uh-huh. ne Prince Diana. Uh-huh. day ñëw New York chez Christie Christie je crois. Christie. je ne sais pas comment on le prononce en français mais c'est écrit en français Christie. pour ñu vendre ay objets ay yéreem ay saagam. bu ma leen ne buuxante naa ba dem doo ma gëm. sérieux parce que daf ma ko jaraloon ma jóge Atlanta. ma ne non princesse il faut ma am dara ci moom. mais malheureusement nag. affaire yi seeroon na seer boo xam ne te man aw ma xaalis. ba ma ko jëndee. ah mu taxaw ci bunt bi rek. dundal samay bët. xool ba sama xoli maam sedd ma daal di bëtt bi jënduma dara parce que amoon lu ma ko jënd. <laughs> non mais xam nga yéen ñaar sax. ah da ngeen di xaw a niroo. mais dama ko faa non da ngeen xaw a niroo vraiment c' est une dame aussi euh, laisse tomber. Oh un parcours remarquable aussi. élégante euh, vraiment vraiment mën a sañse mën a sañse élégante. Oh, euh, trop trop trop belle macha allah. Régis fekkee ne par ngeen aussi élément boobu ñu dugal élément bi seetaan ko ñëwaat ci plateau couvre-feu avec Adja